لا إله إلا الله لا إله إلا الله فان لا إله إلا الله لا إله إلا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 la ilaha illa la faal la ilaha illa la la la faal la ilaha illa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 laa fal ku sopp Cheikh Ibra Fall jugli taxaw ca kaw ñu màggal suuru maam Seynabou Ndiaye ku sopp maam Seera Fall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 ilaha illallah la ilaha illallah Baay Faal jógul ca kaw ni ma maa ngi ni ma ko suru ma say njaay ana Baay Faal ana Baay Faal yéen a ngi nii faal ku sopp maam Seera Faal booy dee di tabbi aljanatullaahi maama Seera Faal kii de moo di Baay Faal ku sopp daa Baay maami say ay na bu njaay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 ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fal doo dem sawara kuy bay fal doo dem sawara ay kuy bay fal doo dem sawara kuy bay fal doo dem sawara ay kuy bay fal doo dem sawara ana bay fal yi jóg leen taxaw ndax

kuy baay faal doo dem sawara ay kuy baay faal doo dem sawara sawara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 laa ilaaha illallaah ana soppe sëriñ saaliw ku sopp sëriñ saaliw mbakke def li nii ñu màggal ko ay sëriñ saaliw mbakke kaman nga doonu réer mbakke ñu dul réer ay mbakke ya ku réer ko gindi ku sopp sëriñ saaliw jógul taxaw màggal ko borom jannatul maxwa kaman nga ay sëriñ saaliw mbakke yaa gën ay Mbàkke ku la sopp dal di gën ay Mbàkke ku la noonu dootul gën ay Mbàkke lii wóor na yaa war a ay di sunu baay lu la la gën ay Mbàkke ku la noonu dootul gën dafate laa ba koy doxote ay sëriñ Saaliw Mbàkke ñibbi na ay sëriñ Saaliw Mbàkke dañuy tëgg ci la jooy yuxu ba bar xalaat nganaale sax ñi ngi jooy ay sëriñ Saaliw Mbàkke ñibbi na ku sopp sëriñ Saaliw Mbàkke booy dee di tabbi aljannatu laay ku sopp sëriñ Saaliw Mbàkke booy dee di tabbi aljannatu laay ana soppi sëriñ Fallu baayu mbeen alaaji Fallu baayu mbeen mooy baay Cheikh Abdul Karim Mbàkke sëriñ fat baayu ndeen barsax jël na waaja maqaama ay sëriñ Fallu Mbakke ay borom maqaama barsax jël na waaju am ngor yeey ay sëriñ Fallu baayu ndeen mooy borom ngor barsax jël na waaju mu xar baaxe ay borom katu rajab kii mooy borom e xar baax ku topp sëriñ Fallu Mbàkke jugul taxaw ca kaw ñu magal alaaji Fallu laay sëriñ Fallu baayu mbeen alaaji Fallu baayu mbeen alaaji Fallu Mbàkke baayu mbeen lor na na xeewal yi baawaana ku sopp sëriñ Fallu ku sopp sëriñ Fallu ku sopp sëriñ Fallu ku sopp sëriñ Fallu ku sopp sëriñ Fallu ku sopp sëriñ Fallu xeewal war la lor na du la ku la sot dal di gën gën ay Mbacké lii wër na yàlla alaaji Fallou Mbacké bàyyi mbeen aa ah, amoo waraam jaarama na borom ndaaru kii di muy bay Seex mu dawa balla maam Cerno borom daaru kii di mooy mbay seex mu doo balla ku sopp ndaayaane ndaayaane maam Cerno borom daaru ay xambaani war leen ma ñu ne ko Mbakke ku lay wol mu ni wul leen ma maam Cerno borom daaru ñu wol ko maam Cerno ba maam Cerno ñëwee sëñ bamba ni ko cerno ñëw nga mu ne ko mbàkke ñëw naa sëñ bamba ni ko cerno akasa man de li ma bëgg mooy ah nga ñëw demal ma ndar mu cerno boo demee ndar looy wax fa ndar ma cerno borom ndar ni ko xaar dema rasulul man su ma demee ndar li ma wax rek man cerno loolu lay wax loo ma wax loowul man cerno duma ko wax sëñ Bamba ne ko ak saa cerno yaa mana dem ndar maam cerno borom ndaru maam cerno borom ndaru maam cerno borom ndaru maam cerno borom ndaru maam cerno borom ndaru ala ala baaxee yàkk daa baaxe ay ba nga dali baax booba ñun juddugunu laa ilaaha illallaah maama seera fat yow de yàkk daa baaxe ay ba nga dali baax booba ñun juddugunu laa ilaaha illallaah yaa koy gindey du nu réer faal dun la reer yu ko reer yow yaa koy gindey laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah borom Tuuba amul morom ay borom jaare ne amoo morom Touba amoo moroom ay borom njaareem amoo moroom Sëñ Bamba nee na lam yabdu mi sak jawa Muhammadi siran wa jaaran fil baraya samadi lam yabdu mi sak jawa Muhammadi siran wa jaaran fil baraya samadi madalana lilama wal kubra maxa wa bi nazati li kulli zamma يخوض بسائر والباطن من أتى أعالي الله من كل زمن هدمة عن الخيوب لا سبات والاستقامة وذهبا وابت لبان كون المزوى رئيسا لكل من خفض الأنوس لبان كون المزوى رئيسا لكل من خفض الأنوس wul xadamaaw fawqa kulli raqabaya minu lu daara man kara karamam nabaya muhammadun misaalu lam yaati fi ma mada wa badan la yaati sabata anna rabbana lam yuridi idan lawabane law lam yuridi lawan yaran lawal bara ya walati walada sawa huwa an-nabiyyu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 لذا لغنا من الخيرات يناخ ودمرا كل ما تدر بنا حبل الوصول لنا يا الله يا الله أدي سنتو بكسي إبراهيم فال